naa ko wax nag sama live ne le gouvernement qu'on en France de nous occasion bu nu mënti am pour maintenir seen pouvoir ils vont le faire on me dira que loolu c'est naturellement le but de tout parti politique en tout cas de tout gouvernement mooy c'est de se maintenir au pouvoir mais avec la manière en fait voilà ce qui ce qu'on au pouvoir au Sénégal ñoom la ñuy wooyee APR Alliance pour la République pour la république on dit bien pour la république donc ku war respecte respecter calendrier républicain calendrier électoral bi mënul weesu ñoom maintenant man j'ai toujours dit que ces gars-là qui sont au pouvoir ils savent qu'ils n'ont rien foutu de bon ils savent qu'ils ont fait trop de conneries ils savent qu'ils ont fait trop de mal aux Sénégalais est-ce que yaa ngi gis et ils savent le jour où ñu génn ci pouvoir bi amatuñu RTS amatuñu yenn chaîne privée yi leen di jàppale gis nga Sénégalais yi dinañu gën a gis li man may kaas li ngi Marius Sagna di kaas li Abdou Karim Gueye Xrum Xax di xaas li di kaas li Barthélémy Dias di kaas li Ousmane Sonko di kaas li sénégalais yi nekk ndengaleer ak euh, tóobee nag feneen ak feneen di kaas sénégalais yi dinañ ko gën a gis parce que intox bi nga xam dañ koy def à travers la rps à travers les médias privés dootuñu ko am parce qu'ils ne sont plus au pouvoir ça dire que foofu ngeen di gën a sentir foofu ñoom ils le savent en parce que c'est des politiciens yaa ngi dégg donc bu benn sénégalais xaar ci situation bi ñu nekk ni Macky Sall organiser leen élection mais dafa am lu wér te wér mooy on est dans neta organiser élection nekkul ci loxo Macky Sall organiser élection nekkul ci loxo Macky sàll lu ñu tënk la tëral te ay lois yu ñu voté mais qu'est-ce qu'on voit au Sénégal gis nga ni ñu démystifier commencé na ci nguuru Ablaye wàdd institution yi parce que jamono yi gis nga PS maa ngi fàttaliku bi ñu nekk xale bu ñu la ne woon am na député buy romb ci tali bi bu leen fekkoon ngeen toog dinaan xaar ngeen di fool bi ñu nekk xale ñun ñëpp dañuy bàyyi bal bi daw dem di xool di yurlu ci fenêtre bi pour gis député laa la député bu ñu la ne woon député mu ngi romb wala député ñëw na fii ñëpp ay daw dem xool yi député ba loolu démystifier nañ ko am na fu mu baax am na fu mu bon fi ñu ko war a démystifier mooy ñu gëm woon jeunes yi que ne ku jaar fii remplir conditions yi am valeur yi respecter principe yi mën nga nekk mën nga nekk député mais qu'est-ce qui se passe ñuy démystifier di démystifier di démystifier di démystifier démystifier ministre léegi ku nekk xam jàpp na ne mën na nekk ministre ku nekk jàpp na ne mën na nekk député ku nekk jàpp na ne mën na nekk lu ko neex ku nekk mën na nekk PCA ku nekk mën na nekk lu ko neex mais Macky Sall nag dafa commencé di ñëw di laal benn affaire commencé na ci Ablaye mais moom daf ko gën a exacerbé en fait moom laay wax. jamonoy Ablaye Wade Ablaye Wade dafa doon joxoñ rek institution yi Macky Sall moom dafa ñëw duut leen baaraam puus leen ñu daanu parce que gis nga calendrier électoral bi Macky Sall dafa bëgg a gëmloo dugal c'est-à-dire c'est un processus c'est une perception en fait bu mu bëgg dugal ci bopp sénégalais yi que en réalité amul amul solo su solo soo xamante ne ni dëgër na quoi et foofu doonu suñu opposition bi dafa dafa complice foofu dañu xaw a complice waxuma nag opposition bi yëpp mais du ma tudd kenn bu ma tuddee kenn ñu ne dama damaa far c'est pas bu doon sama page nag ñeme naa wax lu ma neex mais fii dama bëgg waxtaan ak sénégalais yëpp ngi dégg opposition bi aussi dafa xawoon moyen foofu maintenant léegi sénégalais yi ñu ngi comp ñu ngi commencé di démystifier en fait ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jël élection def ko lu woyof maanaam dem nañ ci élection dem nañ ci élection dem nañ ci élection comment ça s'appelle euh, euh, euh, locale yi ñu waroon def defuñu ko. en fait c'est pas c'est pas une catastrophe en fait c'est-à-dire que y a des yoo xamante ne nii seen mandat jeex bu yàgg ñu ngi dóor si suuf si et bu mu leen bett coowal suuf si bu gën a bëri parce que y a des maires yoo xamante ils savent bi mooy seen sa sànni tàccu ñu ngi profito même bu dee deux jours trois jours de plus su leen Macky Sall jox sax moo tax yii di xew nii yépp suuf si ñuy dóor ak yenn bagage yi di am en tout cas li li nga xamante ni moom moo nar a am diggante bi Macky Sall bàyyee élection yi mu war a am mu yóbbu ko lu ci am responsabilité ci Macky Sall la parce que y a des maires yoo xamante nii xoolal dañuy dóor surtout maires yi far ak Macky Sall parce que xam nañu ne avec Macky Sall y a de l'impunité y a de l'impunité léegi ñun on a laissé faire maintenant élection dem na ba léegi lu banal la man nag li tax may live dinaa ci ñëw mooy maintenant on veut utiliser le coronavirus pour dàq ay élection man yàgg naa ne Macky Sall situation bi mu toll élection arrangé wu ko jamono ji Sénégal parce qu'il est très très impopulaire il est très informé parce que am na renseignements généraux il sait qu'il est très très très impopulaire instant bu demee élection danañ ko duma utiliser na le dialogue pour dàq légis local yi gars yi ils sont tombés dans le piège ñenn ñu bëggoon bañ sax mënuñu bañ parce que daf leen ne on va parler du parrainage on va parler du du truc du yu mel ni Pastef xam ne loolu am na solo ñu dugg ci loo def neneen parce que le gars en fait gis nga nit li ñuy woowee génie politique li ñuy woowee ne moom génie politique am du am génie politique dafay ànd ak éthique ak valeur génie politique génie général bu ñu koy wax saa dafa koo xamante nii jombul dara kooku mënuñu ko juger ci ay xel wala nii cest mooy koo xam gëmul dara comprendre nga man mu ngi mel ni man man mi jàppoon ne tey man xooluma ci ñi may seetaan xooluma si sama famille xooluma kenn man je fuu laa def mun naa toog fii pour bëgg fii ma def loo xamante ni defewul pour ñi seetaan ma simmeeku def ay affaire bagage maanaam koo xam jomboo dara def ay mbir daf la yomb parce que sinon ragal yàlla foofu la njariñ bi amee quoi parce que nit ki tëju ci néeg mën a def dara ragal yàlla am rek xam ne yàlla ko rim di ko xool moo koy téye def dara mooy ku gëm dara gëm Macky nag ci mbellum politique ak Sénégal def ci gëmul dara moo tax dara jomb ko lu ko neex mu des moo tax li ñuy woy réussite en réalité du réussite waaw parce que Ablaye Wade li ñuy wax 23 juin yépp looloo nekkoon ci moom am lu muy jomb am lu muy bañ moo tax mu ne def leen loolu jëmmal démocratie jëmmal Sénégal et pourtant tey sénégalais yi wayam le 23 juin ak fu ñu koy mënti dudd Sénégal danañ xam ne le président qui la là a été démocratique a été avait avait avait avait avait une dimension dem d'état bu ko permettre mu ne dem leen ba permettre loolu am mais la ca Ablaye Wade as néew la nekkoon ci moom dafa nekkul ci waa yi waa ji ab baadoola la ngeen baal ma ci kàddu yi dialogue la ne moo tax mu aj local yi gaa yi nangu fexe nañ ba coow loolu déggatoo ko sénégalais yi sax fàtte nañ ko d'ailleurs politiciens ils ont tout fait sax pour que sénégalais yi élection locale gars yi farataluñ ko trop trop trop boo xoolee élection locale politiciens rek ñoo ciy coow ci quartier yeeg koñ yi <laughs> gars yi seen yoon nekk ci lijjantewuñ ko sax moo tax ku ne mën na nekk maire ci koñ ku ne da ngay dem ci koñ boo xamante ne nii la ma yor ci ressources humaines la mu yor ci boroomi xam-xam la mu yor ci étudiant ak ay nit ñu jàng na mu nekk ñoo xamante ni bu ñu defoon nii rek xaaruñu état mun nañ jëmmal koñ bi nga gis paaw politicien yi koñ bi moom mooy ñëw nekk maire wala maire bi nga xamante ne nii mu gën a rëy làmmeñ ci koñ bi moom mooy ñëw nekk maire les gens ils laissent faire parce que tàggatuñ leen ci loolu tàggantuñ leen tàggatuñ leen si citoyen niveau de citoyenneté boobu noonu léegi nag Macky Sall fi mu jëm mooy dina repousser législatif comme ni ma ko waxoon parce que Macky Sall législatif arrangé ko local sax Macky Sall législatif la gën a tiit sax ko local parce que Macky Sall il sait tey bu demee élection législative il se pourrait sax mu perdre sa majorité parce que configuration politique bi mu changé données yi mu données yi mu jur moom du lépp la maîtriser dafa am ay facteurs yoo xamante ni maitriser wu ko lu mel ni ay Pastef lu mel ni peut-être ay Barthélémy Dias ay Thierno Bocoum xam nga ay ay ay figure figure yu bees yi commencé di judd ci politique ak nouvelle génération bi du ñëw c'est-à-dire ni nga mënoon a waxan wax waxtaan ak li nga mënoon a waxtaan ak euh, euh, Moustapha Niasse mënoo ko waxtaan ak ñoom parce que ñoom léegi dañ ko sekk benn génération boo xamante ni ils sont ils sont très très très trè très attentifs attentifs par rapport ak taxawaay bi nit ki di am par rapport ak discours am par rapport ak parcours am par rapport ak taxawaay posture bi muy am dañ ci exigeant moo tax am na ñoo xamante ne nii yu xam nañ ne yoo xam bu ñu ko defee ak Macky Sall rek c'est suicide la en fait suicide politique la da koy def ak Macky Sall da ngay dee dañ lay rayee ci carte bi mënatuloo am capacité nga ñëwaat parce que ay ñes ak yooyu noonu yeneen yi ñu ne amoon nañ capacité ñëwaat parce qu'ils avaient des na foo xam tolloo fa woon pour récupérer de c'est-à-dire du woon sax discours wala parcours c'était juste avoir les moyens en fait et se gens-là avaient les moyens pour demaat se rataper une nouvelle santé politique dem créer parti politique indi ci ay nit loolu moom moo jafe léegi Sénégal léegi loolu moom moo jafe léegi Sénégal Macky Sall léegi coronavirus bi la yaakaar pour repousser les élections législatives te bu ñu ko bu ñu xefee sax mu jëlaat mun na dem sax ba repousser les élections présidentielles bu ko arrangé wul maintenant dafa am loo xam ne dafa contradictoire loolu gën a tax may laay man li ma gëm mooy seetlu leen bu baax Macky Sall bi mujjee génn dafa ne on va apprendre à vivre avec le virus mais daf ko matérialiser apprendre à vivre avec le virus boobu noonu daf yóbbu na élèves yi ñu jàngi fexe na ba ba am pour raison yoo xam ñun ñëpp xam nañ ko mu ngi ubbi université yi waaw maintenant. on peut apprendre à vivre avec le virus en ouvrant les les écoles les universités yaa ngi dégg en wàccee mesures yu bari on peut apprendre à vivre avec le virus Amadou Ba il peut marier sa fille xew ba mu neex tranquille ah pas de souci on peut apprendre à vivre avec le virus benn ministre bu dem Bignona dajale six cent femmes di yaataa yumbe Pape Gorgui Dieng Pikine dajale ay femmes ne da leen di financer tout on peut apprendre à vivre avec loolu yëpp am na cest lépp mën nañ ko ubbi lépp mun nañ ko ubbi mais apprendre à vivre avec le virus moom ñaar yi bokk ci mooy marche ak élection apprendre à vivre avec moom Guy Marius Sagna du ci bokk Ousmane Sonko du ci bokk du kenn du fi marche kenn du fi dem élection loolu loolu loolu moom mooy li am yaa ngi dégg on peut apprendre à vivre avec le virus ça signifie quoi en fait ça veut dire que on va vivre avec le virus li ñuy woy résilience mooy avoir la capacité peut-être bi nga xamante ni Sénégal bu nekk il va prendre sur lui institution bu nekk c'est-à-dire pàcc askan bu ci nekk pour xool naka la mën a dundee ak virus bi loolu boo ko xasee ba wax. soit da ngay génnee benn texte wala benn décret wala benn loi bu naan apprendre avec le virus nag lii ak lii ak li ak li bokk ci parce que boo dee on va apprendre avec le virus ça veut dire que l'État va continuer à fonctionner l'État va continuer à fonctionner les institutions vont continuer à fonctionner sénégalais yi dinañ commencer di def lu leen neex loolu yëpp mën na am waaye élection bokk ci léegi naka nga mën a ubbee université bu Cheikh Anta Diop ne élection du am Sénégal naka nga mën a bàyyee sénégalais yi ñu dem tabaski ji fu leen neex nga ne élection du am Sénégal waxuma la sa élection du am Sénégal de mais li li jiitu élection yi mooy waxtaan bi fii si électoral bi nga ne du ci dal primo votant yi war a jox seen carte d'identité nga ne du ci dal sare am na yoo xam c'est contradictoire ñoom seen bopp ñoom seen bopp ñoom seen bopp li ñuy wax ak li ñuy jëf cest à man li ci gën a métti mooy en fait da toog di wax waxuma man maa moom dëgg mais li may wax nii dëgg la waxuma maa moom dëgg mais li la sénégalais dañ koy xam mais souvent c'est des sujets yoo xam intéressé wu leen te xamuñ na loolu moom mooy déterminer Sénégal lu ëllëg c'est ça c'est l'enjeu ils veulent pas nous ci débat boobu moo tax scandale yi chaque jour ñoom daleen di gën a neex dañuy gën a tàccu de plus en plus qu'il y a de scandales de plus en plus les Sénégal s'éloignent de ce débat là nga xam il est fondamental Et personne n'en parle. Comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre avec le virus comment est-ce que apprendre à vivre avec le virus en quoi dafa contradictoire ak continuer diagnostiquer fichier électoral bi xoolaat fichier électoral bi ñi bëgg a bindu bindu ji ñi bëgg a jot seen carte jot seen carte d'identité loolu mooy apprendre à vivre avec le virus mooy continuer di dund nañ doon dundee mais xool naka la ñuy changer nu comportement yi mooy lu ñu wax borom mooy lu ñu wax borom jàkka yi ubbi leen mais on a confiance ci yéen mooy lu ñu bëgg a def ci màggal bee gàmmu bi amuñu fitu jël benn décision te ja j'avoue décision bi responsable mooy dem waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak ñoom yaa ngi dégg te tey bés bu kilifa yi ne woon dañuy màggal dañuy màggal xam nga état bi lu muy mën dem accompagner leen en terme de masque logistique xool naka lañ mën a màggalee ci contexte boo xam dinañu moytu parce que nag nañ waxante dëgg mu màggal dugg ma ci débat boobu mais nag bu ñu màggalee bu kenn tooñ kenn de ku nangoo bàyyi sénégalais yi ñu tabaski ji mën na bàyyi sénégalais yi ñu màggal maintenant il appartiendra aux autorités religieuses de Touba wala fa ñuy màggale de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour gérer ko loolu kese fi nekk de parce que fi situation bi tollu moom ku sañta bañ sañ sañta nagu xaw ma naka lañ ko way c'est-à-dire état bi tollu foo xam mun na bañal kenn dara mun na nagul kenn dara état bi daal fenn la ferme fenn la wane fermeté ak ñaar mooy marche du am Guy Marius Sagna doo yëngu bañ nañ ko ba sax waa ji day wa dafay yëkkati avant moo pare préparé marche am sax lañ ko tëxañ tëxañee woon ko ne dañ la dul may sax fooy xam nga dañ la dul may sax fooy noyee bay fooy lijjantee sax ay marche bay marche marche du am élection du am mais leneen lu ne on peut apprendre le virus loolu nag je dis c'est pas sérieux dans un état qui se respecte dans un état qui se respecte ils vont tout faire maintenant pour dugal ci bopp Sénégal yi élection mënul am parce que coronavirus dafa am mais nit ñi mën nañ tabaski ji les ministre peuvent faire n'importe quoi Amadou Ba mën na ngénte doomam nit ñi dajaloo fa ils peuvent faire ce qu'ils veulent waaw démb bi ñoro lañ gis benn ministre bu dem dajale six cent femmes ci benn salle vous pensez que élection dinañ dajale 600 personnes si benn saal pour ñu voter vous pensez que les sénégalais ils n'ont pas l'intelligence d'aller voter tranquillement en respectant un mètre deux mètres un de distanciation physique xam nga ñu teg gel hydroalcoolique gars yi ñëw voter dem ñu jàll parce que Sénégal il faut que muy dox parce que ñi fi nekk nii tey dafa am lu ñu leen dénkoon ne leen app bii lañ leen jox app boobu jeex na nañ ñu ko delloo soit ñu tegal ñu benn situation boo xam très très sincèrement tax na élection mënul am mais ci ni muy demee nii ñoom li ñu si décision yi ñu jël ak ñoom li ñuy gérer ce coronavirus bi amul fenn ñu ci mën a sukkandiku pour ne élection du am wala bu élection te te leen wan ne mauvaise foi am na fa ñoom bu ñu pare woon pour def élection bu ñu pare woon pour mettre les conditions qu'il faut pourquoi du ñu continuer dialogue bi mais ñiy def dialogue bi ils sont pas wala cent mille pourquoi mënuñu ko ne di dialoguer di dialoguer hein hein ci nga xamante ne nii peut-être. nouvelle technologie may nañu ko pourquoi du ñu def vidéoconférence ñoom ñu ngi koy def conseil des pour pourquoi est-ce que Famara Ibrahima Sagna mënu ko def pourquoi keneen keneen mënu ko def c'est pour vous dire que ñii ils ont une mauvaise c'est-à-dire c'est-à-dire on a on franchement très sincèrement non ñun ñun ñun ñun xaw ma lan la ñu def xaw ma yàlla lañ ko def xaw ma lan la ñu def Macky Sall <laughs> mais situation au Sénégal fu ngeen ko natt rek gis nga ñun autorité yi ñu am ah, en fait ñoom dañu nekk ci benn dimension boo xamante ne nii on est tout sauf dans un état en fait gars dañu nekk ci benn dil la xaw ma mafia la wala dañu nekk ci benn dimension boo xamante gis nga lii sénégalais yow sénégalais bi yow sénégalais bi tu ne comptes pas tu n'existes pas parce qu'il ne te voit pas comme un citoyen et li ci métti mooy les gens il sont assez éveillés la presse les autorités ils sont les c'est-à-dire les intellectuels c'est-à-dire ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu woowee borom kàddu yi kilifa yi dañ leen war a interpeller ci lii quoi Sénégal mënul kon ni di doxee nii on a pris un état un état boo xam amul élection amul dara c'est groupe qui gouverne qui fait qui fait ce qu'il veut lu ko neex lay def c'est-à-dire loolu la ñu nekk nii Sénégal cest se dire c'est un groupe de c'est un de voyous c'est des bandes yoo xam ne dañoo accaparé wu appareil étatique Sénégal bi téye ko respecté tuñu dara amul benn député boo xamante ne nii tey amul benn maire boo xamante ne nii tey jamono ñuy toll nii tu es légal amul ñan ñooy maire yi et puis amul benn maire ils n'en parlent même pas ñoom ñëpp ils sont illégaux mais ils par le même pas après ñu ne duñu voté duñu def dara mais les gens peuvent faire ce qu'ils veulent waaw à vivre avec le virus moom corona bokku ci dégg nga mën naa corona bokk ci élection bokku ci lan moo gën a ëpp solo élection ci dëkk bu normal lan moo gën a ëpp solo élection Non, mais c'est extraordinaire. Et moi, je trouve que l'opposition dans tout ça, cette société civile-là, voilà, c'est dommage. Donc, ne vous étonnez pas, bu vous voyez, gestion, ni gérer le coronavirus, vous voyez, même un bon expert xam nga vous voyez, c'est du tâtonnement. C'est du tâtonnement. nga xëcc suba nga wàññi affaire bi di gën a yéeg nga wàññi affaire bi wàññi nga yokk c'est-à-dire gars yi comme ñoom dafa mel ni ay fantasin ñoom dañuy xëy rek génnee affaire xool cest à sénégalais yi ñu jàkkaarlool xooluñ leen comme seeni i doom comme seen i jarbaat xooluñ leen comme seen bopp moo tax aaruñu sénégalais yi ñoom seen i mbu seen seen i seen i privilège la ñuy aar en fait seen i privilège la ñuy aar en fait lépp loo xam mun na entaché seen mandat lépp loo xam mën na yëngal xoolal yëngal seen pouvoir bi munu leen muusa kawaane Sénégal kenn du fa marche kenn du fa marche boo forcé marche leen la jàpp defal la bagage Macky Sall nee na xamul troisième dina troisième mandat ou pas sénégalais yi accepté nañ ko c'est même yi accepté loolu ñoom ñooy accepté Macky Sall def troisième mandat gis nga sax je vous le dis ces gens là yi génne naan les sénégalais duñ nangu loolu ils vont sortir man waxuma duñu génn de mais man dalul sama xel man laa dalul sama xel man li may xam naa ko bu baax yaa ngi dégg contexte 2012 bi 2011 ak contexte bi ñu nekk tey wuute na acteurs yi. wute nañu waaw dañu waxante dëgg waaw bu boobaa jamono yi 2011 douse boo nee ana opposant yi dañ la limal une deux trois quatre cinq tey boo nee ana opposant bi bu ñu la limalee benn bu ñu la limalee ñaar mu jeex bu ñu la nee ana société civile ah bu ñu la limalee Guy mari Sagna mu jeex ñeneen ñi dañoo lekk ci kii bi rek nañ doon xeexee bàyyi nañ ko Guy Marius Sagna kese. moo fi am taxawaayu société civile jeunes yi nag laax de jeunes yi doon xeex 2012 11 2012 Guy mari Sagna kese moo ci am même comportement bi ñeneen ñëpp léegi jàpp nañ ay kilifa lañ màgg nañ toog ci toog ci plateau télé yi lañ dese kenn dootu ji gën a xeex contexte yi du benn acteurs yi duñu benn waaw pouvoir bi du benn opposition bi du benn toog fii nag naan dañuy bàyyi ba 2024 Macky ñemewu ko ñeme ko ñemewu ko ñemewu ko ñemewu ko d' accord Macky ñeme lu raw loolu cest à loolu du débat quoi Sénégal si ñemewu ko lan Macky ñeme ko du makke fi def parrainage Macky tëj Karim Macky tëj Khalifa Macky sàcc élection yi ku sàcc élection ba ñëpp xam ne sàcc nañ ko ngeen na ñemewul def troisième mandat lan moo koy tere mu def ko lan moo koy tere mu def ko koo xam jënd yenn kilifa yi dugal ci poosam jël presse bi dugal ci poosam yor alal bu dee gàññe yor police ba pare nekk un dictateur avéré ngeen toog final ñëwul imposer troisième mandat xam nga fu ñu jëm xam nga fu ñu jëm deux mille vingt trois Macky ñëw waaw situation bu dëkk bi mel na noo xamante yi nii kërëb kërëb dem na waxtaan ak kilifa yi ñëw toog dëgëral boppam neexal na ñëpp ay Aminata Tall jox na leen ay honoraria ñi PCA ku mer ñi moo tax Macky xasatul kenn amatul problème ak benn kii yam gaa yëpp mu blende lépp ñoo ne finalement dem nii ñu dem conseil constitutionnel ñu ne waaw kilifa yi génn ne ah Sénégal di jàmm rek comme yoon nee na nii nañu dem lu ci Ousmane Sonko mën lu ci Guy Marius Sagna mën fa leen jëm ñun ñëpp xamante xam nañ Sénégal ñaar ñetti nit yi génn Abdou Karim ngay génn gars yi jàpp tamaate dugal ci biir Guy Marius Sagna yi génn ñu tamaate dugal ci biir benn jour une semaine réseaux yi ma live keneen live kii live sénégalais yi génn leen ñi naan après gars yi commencé ma waaye sénégalais c'est des moutons waaye séné bu fi bu mu fi bett kenn xaw ma nag yi duñu génn waxuma c'est des moutons dama ne xeex bi il faut mu stratégique coow li il faut ñu koy coow fii coow li bari coow li bari coow li bari il faut qu'on impose à Macky la mu wax boppam il faut qu'on impose cooli gis nga cooli bu bari il sera mu wax ci man moo tax gis nga Guy Marius Sagna je l'aime bien il faut aller sa battre aux côtés des population mais Guy mon frère lenn dinaa la ko xamal bokk na ci xeex bi ñu war a gën a xeex li nga xam moo fi jële gaa yi gars yi manifestation di dinañ fi jëlee nañu dem élection war nañ la yéen du yéen nañu dem élection pour que population yooyu mer yépp faj seen mer ñu jëlee leen fi moo tax coow leen lépp mais il faut qu'on parle du de la troisième candidature il faut que ñu wax ci fichier électoral bi il faut ñu wax ci primo votant yi en 2019 diggante 2019 ak 2024 la ku ci amoon ñaata pour nga am 18 ans maanaam ku amoon 13 ans ku amoon 13 ans di nga am 18 ans ils sont combien ils sont combien nga boole ci primo votant yi nga xamante ni jotuñu woon jot seen carte yi ils sont combien ñu ngi doon waxu un million et quelque un million cinq cent bu jotul mën nañ fekk sa beneen un million cinq wala beneen deux millions ça fait un électorat de presque trois millions yoo xamante ne nii dañ koy bàyyi nii quoi xam ngeen Macky Sall ñaata millions de sénégalais ñoo ko votal pour mu gagné deux millions cinq cent xaw ma ñaata. ça veut dire que ñi amagul seen carte primo votant yuy passé yi ñu sacrifié ak yu bees yii ak ñi jotuloon volet bo voté boo leen boolee ëpp nañu ñi li ne li Macky Sall ne non pas ñu ko votal <laughs> maa ngi jéggalu li Macky Sall ne ñoo ko votal deux millions cinq cent xaw ma deux millions nangam ça veut dire que ñi nga xam war nañoo ñëw dugg si fichier électoral bi ñoo ëpp ñi tax Macky ñi ñi tax ñi nga xam Macky nee na ñoom ñoo tax mu ne ñoom ñoo tax mu nekk président mais loolu c'est énorme tu, tu es trop seul. Ces gars qui se battent, vous êtes trop seul. Vous ne à Guéreou, mais dem fi, dem fi, dem fi, dem fi. Bàyyi leen loolu Allez discuter avec les gens pour leur donner rendez-vous. Qu'on prenne Pour wax par exemple chaque vendredi les gens vont sortir pour exiger à Macky Sall mu wax li mu binduloo ci constitution bi mu ne cest à loolu la bu ñu fi dañu bañ bu ñu dugal gis nga dañoo yeewu. dañoo yeewu te ils sont de très mauvaise fois il faut qu'on prenne avec les sénégalais muy Ousmane Sonko muy les opposants avérés dites à vos partisans prenez date avec les gens képp bépp sénégalais boo xam nee nga Macky bu defee troisième mandat di nga génn lu lay teree génn tey ci koo xam nee na du wax ki nga xam troisième mandat bi ñor na ko toog naan la non bàyyi ba mu génn rek déedéet déedéet bu la ñoree que ne yow mu leer la que ne bés bu Macky Sall nee tey dina def troisième mandat bu ñu dee vingt trois vingt deux mille vingt trois deux tey bu ko leeralul lan war a mën a lan moo la war a mën a tere nga génn ne ko leeral ko. parce que nag fii ak deux mille vingt trois lu ne xaj na fi Sénégal la ñu nekk Afrique la ñu nekk lu ne xaj na fi. donc sénégalais yi ngeen ne yaakaar ngeen sénégalais yi fëgg seen dënn noo ñemewu ko waa ñemewu ko te tey mu taxaw ne mu vétolé ñu constitution 2016 tey mu taxaw ne du ma wax du ma wax den ngeen ne kooku ñemewu ko kooku sàcc élection ne nangam pour cent la am ngeen ne ñemewu ko waaye man saay quand même bu ko xaar mu def parce que boo leen xaaree mu def xëy na kii dee man la wala yow wala keneen wala sa rakk wala sa frère wala sa sœur wala sa keneen loolu la ñu war loolu la ñu warul nangu tey dafa am loo xamante ne nii Sénégal toll na ci démocratie lu mu ñu may mooy guy bu ngeen demee di waxtaan population yi il faut ngeen comprendre que ni seen problème le fond du problème les causes profondes mooy politique bi mooy Macky Sall organiser les gens que les gens exigent à ce que Macky Sall leeral carte gi ñu xam ne 2024 élection la ñu jëm Macky mooy kan xam nga li ñu dal. li ñu nar a dal ci Macky moo ñu nar a dal ci Alassane Ouattara maanaam ci dëkk boo xam Ivoirien yoo xam c'est des millions de millions d'Ivoiriens Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire ki dee na ko yàlla yërëm ak moom rek la jàpp na ñoo mën a yor Côte d'Ivoire xam nga loolu mooy le problème de l'Afrique c'est ça le mal de l'Afrique en fait comment que des gens ñu jox leen ñaari mandat ñu ñu taxaw ne liggéey nañ mais on n'est pas capable d'organiser des élections sans nous et ils viennent dire aux liggéey nañu Macky Sall naka la mën a liggéeyee def douze ans un Sadio Macky mooy kan Macky ni mu gëmee ne c'est un Sénégalais qui est sorti de rien du tout noonu la déwut Sénégalais qui qui peuvent sortir de rien du tout ñëw remplacer ko parce que Sénégalais yi Ablaye Wade avant moo remplacer Abdou Diouf lan leen doon wax waaw Diouf bu demee kuñ fiy teg parce que ñun dañuy jël nit ñi def leen ay extraterrestres suñu suñu suñu communicateur traditionnel yi dañuy jël suñu président yi tagg leen a tagg leen a tagg leen a tagg leen a tagg leen def leen ay fara wadd nguur fara xaw ma lan Macky Sall doomu xaw ma lan dañ dañ leen di tagg tagg ba def leen ay personnes yoo xam hors commun lañ Macky ci école yi la jàngee balaa ngeen noo xam du dara mu toog ak Sonko débat laal tuuti kii nag man nag mënul ñàkk <laughs> ngeen baal ma balaa ngeen doon xam Macky du dara mu toog ak Sonko wala na toog ak Idi débat xool leen Sénégal léegi amatul débat ay monologue ay am on invite une personne mu ñëw di wax amatul débat xool leen suñu plateau télé y a plus de débat au Sénégal waxatuma la Ablaye waxatuma la waxatuma la rek Macky Sall mais les ministre de Macky Sall nangootuñu débat contradictoire y a plus de débat parce que amatuñu ay argument et c'est là où il faut que les gens en profitent aujourd'hui Macky Sall est impopulaire c'est là où il en profitent et que dans la communication Guy Marius Sagna il faut que les gens vous ramènent yàlla daf leen nattu ngeen di wax sénégalais di leen di déglu ngeen di am ay temps d'antenne yoo xam sénégalais il faut très attention à ce que vous dites gis nga les scandales là que vous yi ngeen di dénoncer les sénégalais le savent et c'est ce que les les loolu lañ bëgg ngeen di wax ça c'est les conséquences du système il faut aller directement vers les causes il faut ñu dem directement ci causes yi parce que boo xoolee débat yëpp a la fin xam nga lan la ñuy wax. c'est Macky Sall c'est Macky Sall maintenant puisque c'est Macky Sall pour dégommer ce gars-là on sait ce qu'il faut faire il faut exiger à que Macky Sall respecte calendrier électoral bi il faut que nit ñi vote parce que vote vote mooy fal député mooy dindi député mooy fal président mooy dindi président vraiment j'en appelle à tous les patriotes yi nekk si réseaux sociaux yi su ma nee patriote nag du ñu nekk Pastef su ma nee patriote mooy patriote du Sénégal ak parti booy mënti bokk ngay politique politico hmm? parce que cette histoire là élection yi nii histoire élection yi histoire locale yi ak législative yi ak présidentielle yi bu ñu seetaanee Macky Sall ak fi mu jëm lépp lay dajal 2024 la jëm ak ñun dóor ñu ko bu rafet Sénégalais yi kenn du génn kenn du yëngu waaw kenn du génn kenn du yëngu maa ko Ivan bunkeriser ce pays là comme ni mu def ci parrainage bi dara du xew de te bu leen fi xaar kenn nag ku génn ñëw jël défense su peuple bi kenn du ko def bu leen ko xaar ci kenn parce que kenn du ko def waaw waaw man franchement waxuma dootuma wax ci yeneen scandale yi de mais man sama laay moom dootul sori lii may wax ni waaw parce que mais yi dóor suuf élection locale moo leen fi jëlee ñu dégager leen on met en place des des des gens yu sérieux changé nañ ni ñuy voté maire c'est-à-dire maire léegi ku ne mën na ko doon c'est-à-dire ndax stratégique ñoom ci ci seeni mbon mbon yi ñuy def dafa am yu ñu jox yoo xam ñun ñoo ko moom mënatuñ ko dindi. yaa ngi dégg nañu exiger à ce que élection locale am ñu fal ñeneen bu ñu falee ñeneen nag ñooñu ñuy fal ñu exiger leen à ñu leeral gox gox bu nekk. parce que état bi du ko def ils veulent de réforme mais ku ci nekk yow maire bi nga fal exiger à mu def liggéey bi nga soxla bu ko defee population yi nga xam di jooy nii Guy Marius Sagna hmm? gëwuma ne kenn si ñoom dina renouveler mandat wu maire loolu lay xeex bi nañu fexe ba élection locale am force ba élection locale am gars yi faj seen maire dàq ñi fi nekk indi ñeneen waxuma waxu waxuma den leen delloo seen suuf de mais suuf dootuñu ko jaay comme état bi du def comme état bi du def réforme du mës a def réforme parce que li ñuy dénoncer yëpp les gens le savent li ñuy dénoncer yëpp les gens le savent chaque jour dinañu dégg conséquence déggaat conséquence déggaat conséquence mais gis nga à ce rythme bii ñuy dem nii ci troisième mandat wu Macky Sall lañ jëm les gens le savent Macky il faut qu'une pression forte pression bu am doole rek mooy tax mu reculer waaw Macky Sall lu mu mës a teg fii Sénégal jàllale na ko xool leen bu baax li ma leen wax luy yoon ak lu dul yoon lu mu mës a teg Sénégal jàllale na ko te nii Sénégalais yi fi nekkoon ba mu koy jàllale ñoo fi nekk 2024 ah Sénégalais politiciens yi yi fi nekkoon ci parrainage bi mouvement de société civile bi mu nekkoon ci parrainage bi ñoom ñoo fi nekk 2024 ah dara du changé. le gars il va sortir l'armée il wax conseil constitutionnel damay du bokk ñu ne ko da bokk loolu lañ koy wax mu ne donc damay bokk man je suis républicain je respecte la constitution kilifa diine yi bu ñu génnee mënuñu wax leneen lu dul ah dëkk bi de dëkk jàmm la hmm? waaw comme lu ñu waxoon rek jarul coow comme élection la daal na ngeen dem Sénégal yi ku ñu wóolu ñu jox ko réew mi fa lañ jëm de le gars nag bu ñu demee ci élection yooyu noonu day sàcc. kenn mënul tee mu sàcc Ousmane Sonko amul doole bu mu mën a teree Macky Sall mu sàcc élection Sénégal loolu dëgg waaw tout le Sonko amuloon ay moyens suffisants ci élection yi moo tax mu jël troisième sàcc ko dañ ko sàcc sàcc yomb parce que amuloon les moyens il pouvait pas être amuñu moyens yi on était benn parti bu bees la Ousmane Sonko Barthélémy Dias nii nii nii nii nii mënuñu tere Macky Sall mu sàcc élection 2024 li tax ma tudd nii nag ñeneen ñi ñoo waneegul seen bopp moo tax ma leen te góoma ni dinañ ko ko tere au pire des cas au piir de cas xam nga gars yi sax dañuy naan Macky day préparer candidat man je préfère sama préparer candidat mais bu mu bokk parce que gis nga le fait que Macky bañ a bokk troisième mandat dafa am solo pour Sénégal am solo pour ëllëg ngir bi toog mais am solo aussi pour l'Afrique donc gars yi li laay wërsul man loolu rek a taxoon may live nañu focus ci loolu nañu waxtaan suñu biir waaw ku ci nekk xam nga li nga mën a def ak li nga war a def parce que mënul ko mënatuñu continuer nii nag waaw man damay tàmm di ko wax sénégalais boo ne gëmoo sa bopp dina la mere sénégalais boo ne nii mu xeex ak yow mais chaque jour Macky Sall ak i ñoñam continuer di ñu def lu leen neex Macky Sall moom moo génn ne on Continuer à vivre avec le virus. Continuer à vivre avec le virus, c'est continuer à laisser les institutions fonctionner comme il faut. L'économie, le politique, le social ak leneen ak leneen ak leneen fichier électoral bi dañu war a continuer di def ci li ñu ci war a def ñi war a bindu pour voter ñu voter date ñu war a voter ñu voter date yooyu noonu parce que ñoom kat ñoom ñoo ne apprendre à vivre avec le virus c'est regrouper six cents femmes à Bignona la se taper c'est marier sa fille en regroupant des sénégalais ak leneen ak leneen c'est laisser les sénégalais tabaski ku nekk def lu ko neex yaa ngi dégg c'est laisser les sénégalais ci plage yi barke démb la ñuy door a ñëw Thierno Bocoum il l'a bien montré di door a tëj ci plage yi en une journée ils ont réglé le problème ça veut dire leen woon lu ñu bëgg mooy virus bi di propagé wu. gis ngeen bàyyi nañ tabaski bi yolomal ko deux semaines après tabaski bi ka communautaire yi yokk gën a ëpp que cas cas cas contact yi yi est kon xam ngeen fi ñu jëm ak ñun corona ba deux mille vingt et un ba deux mille vingt et un élection législative ñu pousse parce que Macky Sall dil bu muy mënti teg dil bu muy mënti teg pour deux mille vingt quatre dafa soxla benn benn benn euh, assemblée nationale boo xamante ne nii dafa am majorité bu confortable te tout le monde sait bu ñu demee élection législative Guy Marius Sagna bu amee liste day nekk député kene Sénégal yu bëri fii xam ngeen leen waaw ay Barthélémy Dias yi risque de retourner dans l'hémicycle boo fa amee Ousmane Sonko nag am fa Barthélémy Dias am fa Guy Marius Sagna am fa ñeneen ak ñeneen ak am fa ay Boubacar Camara yii nii nga xamante ni dañuy dem dañuy dem assemblée ah Macky Sall xam na ko les gens vont se ay benn benn même bu ñu dee benn benn ils vont aller à l'assemblée et ça va être très compliqué pour après mu dil dil parce que dil bi mu war a dil moom munul fexe ba génne si ñaari institution yi muy assemblée nationale ak à part maintenant assemblée nationale nos juristes la ban responsabilité nañ ci am nos magistrats ban responsabilité lañ am le monde du droit bii nii nii ñoom ban responsabilité lañ ci am parce que ñañu tabb ca biir conseil constitutionnel dañu ñoom ci ñoom la ci seen njaboot la ñu bokk qui ne dit rien nag Momar Fall nee na les gens de, la diaspora sont plus patriotes les de la diaspora ne sont pas plus patriotes ils sont juste beaucoup plus avertis en fait ils ont vu les deux versions gis nañu Sénégal état gis nañu beneen dëkk gis nañu état bu normal ni muy doxee gis nañu état bu normal ni saani ñoom dañuy am dañuy am lecture bi directement man lecture bi ma amoon avant maa génn nekk Sénégal ko ak lecture bi ma am nii tey donte amoon na benn lecture ba am fii laa ko gën a réconforté fii laa gën a xamee vraiment que y a une différence et que aussi les gens de la diaspora la plupart d'entre eux c'est des gens qui sont autonomes financièrement et tout mën nañu gérer seeni problème alors que Sénégal ñu ci bëri boo gisee nanguwuñu bañ c'est parce que seen seen sutura ak seen teraanga ci gars la nekk comprendre et que ñuy bañ bariwul mais des patriotes y en a au Sénégal parce que li lay woon rek tey xoolal Pastef fi mu jóge aussi les gens de la diaspora ont joué un rôle déterminant ci avénement wu Pastef mais il faut pas perdre de vue aussi voilà c'est des Sénégalais qui l'ont mis sur pied et qui l'ont <laughs> voilà ba ñun ñu jot ci quoi voilà man je pense qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire confiance aux Sénégalais euh, dégg nga mais nag confiance bi ma jox Sénégalais yi yeggul ci bu ñu demee ba 2024 ils vont sortir pour dire non à Macky Sall même s'ils le veulent ils ne le pourront pas ils ne le pourront pas parce que blocage bi dina nekk une blocage boo xam c'est physique armée blindée bu tegu fii dina am benn blocage symbolique benn blocage boo xamante ni dina jóge ci fànn bu ne yaa ngi dégg parce que nee naa la ñun suñu kilifa yi ñu coow suñu kilifa yi bëgguñu coow lu bari ñoom coow bu naree am li gën a yomb la ñuy def ils sont pas là à chercher savoir ci telle loi defuñu defuñu aliné naa ñu kii ils vont dire jàmm lañ bëgg ci dëkk bi jàmm. boo nee jàmm lañ bëgg ci dëkk bi nag tënk nga opposition tënk nga opposition tënk nga société civile. je dis pas qu'ils le font volontairement mais foofu la ñu waxee foofu la ñu mën a waxee foofu lañ leen mën a dégg ku nekk ak nag fi nga leen di déggee bu ñu nee jàmm la ñu bëgg bu doon Macky Sall gëm na leen ñoom gëm Sénégal nekk républicain nekk jullit comme ni mu ko waxee bu ko kilifa diine ne ko jàmm la ñu bëgg moom xam na jàmm ji fi mu nekk mooy bokkul warul bokk du bokk seulement nag du ko déggee foofu ko déggee foofu ak quoi aussi kilifa même boo demee ci diine islam dañ ne kilifa da koy jàppee kilifa parce que kilifa yàlla moom moo koy fal donc ñoom bëtu kilifa rek lañ mën a xoolee Macky Sall dafa am ay y a des combats yoo xamante ne nii si nous la jeunesse la nouvelle génération ñun ñoo ko war a xeex waaw ñun ñoo ko war a xeex voilà maa ngi dégg ñu ne Macky Sall war na ñëw Paris le 26 le 27 gars yi nañu ko teeru surtout les gens de Paris là nañ ko teeru nañ ko teeru troisième bu ñu ko fi bu fi kenn teeru ak ay scandale scandale nañ ko teeru ci troisième mandat nañ ko teeru ci respecter le calendrier républicain ñu dem élection ku ñu fal mu dem man je pense que on peut lutter encore une fois on peut dénoncer tout ce qu'on dénonce tous les scandales et tout on peut en parler y a pas de souci mais surtout les gens yi nga xam ils ont la possibilité ils ont la chance de parler sénégalais bi di leen déglu il faut que aussi bu ñu amee occasion comme occasion bi Guy Marius Sagna am de man j'ai trouvé dommage ce qu'il a dit il a été très pertinent il a été très pertinent voilà j'ai pas bi am diggante Guy Marius Sagna ak Omar Faye leeral askan bi c'est vrai que Guy Marius Sagna am na lu mu leeral ci kanamu kii mais man bëggewuma ko noonu man pour man Guy Marius Sagna ak ak Omar parce que Omar aussi des fois c'est vrai que jàmbaar la mais dafay jaxasoo si dossier yi quoi man je pense a woo la ci ruq waxtaan ak moom ñu bëri ison ison ils ont man voilà ils ont aimé la réaction de Guy Marius Sagna réaction bi def baax na mu leeral ko mais je pense que aussi leeral na ko mais Guy bu mu fàtte woo Omar ñu waxtaan parce que Guy da nga soxla Omar ko mel ni Omar waaw déedéet nag mu ay las juum ci ay mais da nga ko soxla parce que jàmbaar la xeexkat la voilà da nga ko soxla voilà juumte mënul di ñàkk yeen jax mënul ñàkk mais il faut pas que gars yi def ci réseaux sociaux yi Guy Marius Sagna Omar Faye leeral askan bi ñun bëri ñu boo limee Guy lim Karim lim keneen mu jeex donc nañu fexe ñoom ñu ñu juboo ñu bokk bu gaa yi man moo tax part loolu partagé wu ma ko duma ko bind gii li mu wax c'est clair dafa doon leeral mais gii ak Omar dañoo war a ànd waaw kenn dugal ci réseaux yi moytu leen loolu il faut moom laa tout le temps xeex bi il faut ko ñu koy def xeexu xel man bu ma leeroon ne tey par exemple Omar il est de mauvaise foi dafa change defa nii d'accord mais Omar nag man dama ko suivre man Omar laa njëkk a xam gii xëy na gii njëkk mais Omar laa njëkk ràññee gii te te Omar bu ko ràññee ba léegi xam naa ne day dóor day dóor de tey dóor fi mu méttee lay dóor day dóor fi mu méttee lay dóor donc partage gii Omar gii Omar gars yi ñàkk mais dañu jàpp ne gii ak Omar dañoo war a ànd voilà voilà Pape Mballo nee na monsieur Omar Faye lëndëmal non man gis nga nit danga koy seedeel li nga xam ci moom Omar depuis ci Ablaye Wade day xeex ñi mel ni Omar bariwul Sénégal Omar bu fekkoon dafa am lu mu bëgg di ànd nag Macky ak keneen man nag sa waay mënul di def loo xam defuma ko di def loo xam dama si teg sama bët man ne fi ci ay suspicion yii nii kërëb kërëb yaa ngi dégg yàlla man position bi bii Mari Sagna am ci akile ak kii par man du position bu laa am mais damay respecté gis-gis gis-gisu gii mais c'est pas parce que Dakaruma gii foofu rek damay noo gi Sénégalais noonu def man mun naa toog fii di live de ñu naan waaw suba ma live live naa fi si Soumboulou Bathily amul lu ma déggul am na suñu ma bind ne ma dootuma la déglu parce que dama ne bàyyi leen Soumboulou Bathily c'est-à-dire dañ lay jugé ci benn fait <laughs> c'est ça le problème qu'on a aussi tey Ousmane Sonko mu ngi dem mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem ci benn wax on va fuser les trucs degré bu ko fuser yàq ko imagine leen ci loolu buñ ci téye woon yàq Ousmane Sonko man même bu ma nekkul Pastef mais Sénégal dafa soxla Ousmane Sonko. c'est que aussi il faut que ñu éviter di fonctionner noonu quoi Omar ak Guy Marius Sagna dañu war a ànd ci xeex bi Omar ni muy waxee ni muy defee ni muy defee man de li ma xam mooy si turu askan bi rek lay wax xeex xeex te ba muy xeex ba léegi position xeexkat la la taxaw waaw dégguma ko aussi ñu ne ko financé nañ ko fii jox nañ ko kii ay organisme international jox nañ ko lii jox nañ ko lii jox nañ ko lële donc gars yi xeex bi il faut muy ànd ak intelligence nañuy jàppalante nañuy jàpp suñu mbër yi mbër yëpp mënuñu nekk benn na arène bi